di nuyu sunu kilifa di cheikh mohamadul muntaha eh, khalif general de mourid nekkal fi njabootu serigne touba gep nonu la ñuy serigne sëriñ antagne mi nga xamni mo moo fi toog jataayu borom dar musti di siare sering mustapha absa di len ñaan ñom ñep ñu yag fi te wër nonu la ñuy Thierno Mouhamadul Bachir mu jiite njabootu Cheikh Omar Foutiyu di di kenn ci ñun noonu la ñuy siyaare sëriñ Babacar Sy Mansour noonu la ñuy siyaare sëriñ Abdourahim sekk ci Canaba noonu lañuy ñuy demee Njaasaan siyaare xalif général ba fa ne noonu la ñuy siyaare képp koo xam ni kilifa ak diine nga te nekk ci réew mi ñu ngi lay siyaar di la ndokkeel di la ñaanal yan bi nga xam ne sunu borom teg na la ko mu woyof tey ba mission bi nga xam ne moo tax yàlla indi la fi ñi nga jiite topp la ngir loolu yan boobu woyof ba nga am ca ndam réew mi nag dafa am num bindoo dañoo dem ba wax yombatul Sénégal gor ñu bari fi mu toll lu leen naqari ak lu leen neex dañuy toog ni cel ndax jamono demee noo xam ni saa yoo waxee ñu am fu ñu la féetale waaye nag li may wax dama ci jël sama borom témoin ndax nit ki loo ko xam-xam suñ borom mi ko sàkk indi ko fi gën la koo xam man lépp lu may wax ci réew mi rek yàlla tax ma di ko wax ak Sénégal waxuma ngir usmaan Sonko waxuma ngir Macky Sall Sénégal laay waxal te barki dem lool la wax serigne serigne muntaha ni ko man réew mi moo ñor jam ci réew mi moo ñor réew mi tege ci aw yoon moma ñor te japp na ne suma waxe li kep ko xam sama sama doxalinu démb xam sama doxalinu tay. japp na ni su la nexe war nga ko meuna gem ki yalla tek ci bop réew mi tey muy Macky Sall 2009 2010 2011 ba ni ko sun borom di joxe ngor gi daanañ bok ay réunion di tok di xalaat daanañ waxtaan maa mang moom ci lo xamni njariñal réew mi kese moko taxone taxoon kon tay suñ démé ba tollu fi la nga xamni ni tam mom lañ da xek di ko waxtaan muy réew mi man fofu la nek ba légui réew mi kilifa yi diini ma ngi ñaan ñom ñep kenn ku ci ne na xamni côté bu ne sax njabota nga fa bu dee takk der yi moo xam gendarme la moo xam police la moo xam lu mën a doon soo demee ca mbooloo moomee da nga fa fekk njabootu sëriñ muntaxa da nga fa fekk ñi ma tudd seen tur ñëpp kenn ku ne ak njabootam ña ñuy taxawal di jaamaarloog ñoom buñ demee ca mbooloo moomu kon seeni njaboot nga fa kon nañ jàpp ne seen ñaari njaboot ñooy jaamaarloo réew mi nag jàmm fi xaj mënuñoo am lu dul jàmm te sun mag ñu baax ñi nga xam ni tey ñoo ŋànk diine ji ba diine ji ak fii seen warugar def nañ ko jóge fi bàyyee ñu fi ndono ndono loolu nañ ko sàmm ba dar du ko yàq ñu xam ni ñoo jaboote nit ñi kenn ku ci ne responsabilité boo war a jël na nga ko jël te yàlla tax parce que kilifa diine wala njiit Moham xam président de la république nga mo xam ab xalifa nga mo xam lo meuna a doon ba ci borom kër gi ne ci këram fiñ koy xamé nawé ko fa moy bu responsabilité euh may ñaan président de la république mu xoolaat entourage parce que man na japp na ni entourage am amna luñ koy wax lo xam lañ koy wax demewul non entourage am yakal nañ ko digënté ak nit ñu bare bari so su nit waxe ñu ne ko diw sangam da la bañ diw sangam da la contre nit ki nan ngay mëna participer ci liko tek ci réew mi façon bu nga xex ko ci jamono wat ma and ak ousmane tanor jang ñom ñep ba ci moustapha niass mi nek président assemblée nationale am na kuréel goo xam biñ koy biñ koy former ñako former formé moustapha niass mo ne len bu ngeen bëgge ñep daje da ngeen koy jox suñu abdou mbacke mëna ko coordonné ñep te bobu dañu jappone ni su mbir ma taxawé réew mi dana ci gis boppam looloo ñu ci dugaloon ñun war wutuñu palug àdduna amul benn poste boo xam ni postu àdduna la boo xam ni dañ koy joxe boo xam ni man bëgg naa ko amut lii ma sëriñ Tuubaa sedd bëgguma ko weesu ñaanuma yàlla weesu ko te duma ko weesu kon ay palak ay alal ak suuf ak dara lu ma ci intéressé wala loo xam ni moo ma tax di jóg wala moo ma tax di wax amut man li ma bëgg rek réew mu tege ci yoon ku réew mi doxal doxal yoon yërëm nit ñi dimbali leen ba kenn ku ne li nga xam ne mënoo ko ñàkk ci àdduna te mooy dund nekk ci jàmm yar sa njaboot jaamu yàlla ak foo mën a nekk moo xam jullit bi nga moo xam chrétien bi nga loo mën a doon rek nga nga nga nekk nga nekk ci loola jàmm jooju la ñuy woote ci Sénégal euh, kilifa itam nañ xoolaat bu baax seeni entourage parce que am na ñoo xam ne dara waru leen ump ci réew ñoo ngi profité di nuyu monsi monseigneur Benjamin Ndiaye euh, damaa amul jot waaye su ma amoon jot fan yi danaa dem seeti ko waaye nag ñoo ngi koy ndokkeel di ko xamal ni lii may wax nii cër bi ci suñ Sëñ Muntaxa am euh, Thierno Mouhamadou si am suñ Sëñ Babacar Sy Mansour am ko ci yeneen këri diine yi ci Sénégal yëpp am ko ci noonu la ci monseigneur Benjamin Ndiaye amee amee amee boobu ndax kilifa la nekk ci réew mi yilif mbooloo te macha allah mbooloo mi tam eh, ci yar lañ leen xam liggéey calme jàpp seen njàmm man de wax dëgg yàlla jàngu bi loolu laa xam ci ñoom xaw ma ci ñoom leneen kon na jàpp ni moom it rôle bi nga xam ni suñ mun Muntaxa am na ko ci réew mi ci ñim jiite yeneen kër yi am ko ci ñi ñeneen ñi jiite eh, monseigneur Benjamin Ndiaye noonu la ko amee ci ñim jiite nañ jóg taxaw ci suñu réew mii seet li nga xam ne moo ñu mën a jëmale kanam ñu nekk ci te bàyyi détails yi nak euh euh sama gis-gis bari na lu xew lo xamni ni ñi ko wara yeguñu yëg yëguñu ko boo gisee man ni kilifa yi deene yi nañ sétat sen entourage tay suma doon joxe exemple dama nan tay sëñ muntaha ni président de la république di jote lu xew ci réew mi ngor gu jot man japp naa ne muntaha mi ma mi nga xamni moma yilif yili fa ma nekk muy daaru muxti jàpp naa ne yoonu murit tey kër gu fi ne waxuma la daaru muxti yoonu murit ku fi ak foo waay mën a ne lu fa xew balaa ngoon a jot war naa dugg nopp suñu muntaxaan war nañoo dem ni ko lii xew na daaru salaam lii da xew na daaru ma lii xew na kër maam Cheikh dafa lii xew na feneen xew na feneen xew na feneen dara bañ ko umb jàpp naa ne bu fekkee kilifa daa jaboote loo xam nii dayo bi suñu borom subhanahu wa taala rek moo ko xam jàpp naa ku ko bëgg dimbali ku ne la nga xam ni ca njabootam ne suñ jubee na xam suñ dëggee na xam lu fa xew na xam jàpp naa nag kilifa yu bari ci Sénégal amuñu information ñi leen war a wax information yi xew bañ xam ko man caa def lañ ca war a def information yi du àgg ci ñoom ba tax na bari na kilifa gu ñuy sikk goo xam nii ña ko wër nekk ci ñoom ñoo leen yóbbe lool kon nak maa ngi xamal président Macky Sall xamal président Ousmane Sonko xamal Sénégal yëpp ni Sénégal Sénégal yooyu ko nañ teg réew mi ci dëgg ku jadd nañ la la yoon waye ku nekkul ci dëgg te na la ñëpp wax ne nekkoo ci dëgg réew mi Sénégal yi ñoko mom ñoo ñaan jamm ci réew mi eh, di ñaan ñi nga xamni ay responsabilité lañ yor ci réew mi te jité mbolo nañ sétat seen taxaway bu baaxa baax ndax ku fi nekk xalif li fekk fatwo kenn mënu ko dindi nit nak mën naa nekk président ci ak dundum di dund batay te dut nekk président Abdou Diouf ngi fi Ablaye Wade ngi fi man de Macky Sall 2009 2010 2011 taxaw bu ne taxaw nako ci wetam and ko Ousmane tanou jang pour mu jot ci réew mi parce que dañu jappone su jotee ci réew li Sénégalais yi bëgg dana ci jaar ba lañu metti won ci changer changer régime buñ ko buñ buñ ci jotee fi Sénégalais yi bëgg ak liñ ñu yaakaaroon ci moom ñu am ko ci loolu itam weesuwut na gën a xoolaat entourage te gën a gëstuwaat te xam ne am na lu xew loo xam ne xamu ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan jàmm ci réew mi kenn ku ne tam li la war na ko def lu la waratu bu ci jéema a dugg réew mi nag léegi ñëpp a ragal ndax tuumaalante bi bari na. lu neex waay wax kenn rusatul kenn foo wax ñu am fuñ la dëkkale waaye nag loolu mën la daj am na ñoo xam ne àdduna du yàgg yàgg ba ñu nekk ci lu ñu war a nekk ñaanuñu ko yàlla am na ñoo xam ne àdduna du yàgg yàgg ba ñu nekk ci li ñu war a nekk lu ñu war la nekk ci la ne waaye nag sutura lu am solo la ci ci ab jullit maa ngi koy wax tey ku ma doon waxtaan ma ne ko xam naa genn kilifa gu mag ci réew go xamni dafa massa nek ci otom ànd ak dul def sok, daje kenen da wacc tok fi suuf ni ko suturaal ma ndax ki ma andal duma sama soxna te suuf yooyu musibaam kooko ko ñu dem ñu dem boba lay mën na ken musu dégg kan kam dajalon defaloon nako ko sutura te su su ko su fekkoon ni ca jamono yoy da ko waxon lolu continue ba kon ba legi coow lolu dana ko raw te ba legi ken xamuko kon sutura lu am solo la ci doomu aadama man nag néew mu Ousmane ko def néew mu defut waaye nag lu lu mën a xew rek nañ ko def li wàcc laay tax a lépp leer naññ naññ naññ nañ benn par par la bañ bañ ci am ñu teg ko ci yoon rek euh, sama xarit nag président Moustapha Niass nga xam ne maam ngi moom seqoon nañ lu baree bari ci jamono yii fi yi ñu bëgg Abdoulaye di jóge fi. Euh, maa ngi koy wax ni ko mën naa taawloo président Macky Sall donte mooy kilifaam nag di suñ kilifa ñun ñëpp président Moustapha Niass mën na koo taawloo li may ñaan président Moustapha Niass teraanga ju nit di am ci àdduna yàlla jox na ko ba mu am at yii mu am nga xam ni tey Sénégal su demoon kër tafaa tëdd fa defatul dara réew mi su amee problème war nañ koo fekk kër kër Tafa waxtaan ceeg moom pour mu jóg ci taxaw ci maa ngi koy ñaan na yëkkatiwaat. ab taxawaayam ci réew mi te moytu yu baree bari noonu laa koy ñaanal nag ñi nga xam ne ay mag lañ te ñii ci réew mi yëpp ñu defaraat seen toogaay defaraat seen taxawaay jàppale réew mi ak fuñ mën a ne euh, président Macky Sall itam xam ni réew mi am na ñoo xam ni moo leen yër te ñoo ko gën fuuf ci ci jaamu yàlla ne ci lañ war a ne te tey yàlla dogal na moo leen yilif ku mu woo nga wuy jug man jàpp naa ni moom ñëpp a war a sant yàlla waaye kenn waru ko cee jiitu ndax bi mu daataa nekk président de la république ndomb gu ne takk na ko ci ci ci réew mi tey bu dëkkul woon président de la république dem turam dootu fay ci histoire Sénégal te yàlla jaareel na ko foo xam ne am na ñoo xam ne ñu dàqu leen a jàng amul lenn lu mu leen ëppale te loolu lépp suñu borom dimbali na ko ci ba mu jaar ci ba mujjee président de la république nga xam ne mënatu koo weesu. ñëpp war a sant yàlla waaye na moo ci raw maa ngi koy ñaan mu xam ni yàlla wàccoo naa na dimbali réew mi na yërëm nit ñi na xam amul APR amul ku ànd ak Sonko amul ku ne PS amul ku ne PDS ku fi nekk ku ne moo la kon loolu laa bëggoon a wax di ko wax te yàlla tax di ko dénk Sénégal yépp di ko dénk kilifa yi diine yi di ko dénk politique nañ delloo si seen xel te liggéey réew mi feebar bi nekk ci réew mi doy na sëkk te man dama seetlu ni sénégal léegi dara xewatu fi lu dul politique kenn dalatul ci jaamu yàlla kenn dalatul lu liggéey nit ñi nit ñi nga xam seen yoon newu ci politique sax dugal nañ leen ci loolu nag maa ngi ñaan mu dakk te kilifi di nañ ci jóg nañ ci jóg parce que réew mi mag ñee ko defar ba mu agsi fii damaa mas a dégg ci ku ñuy wax sëriñ Mbacke Ndiaye mun ne ñi fi nekk ñëpp di coow tey doo wër réew mi ba gis ci benn dëkk boo xam ne dañ naan ñi fi coow nii ci politique bi seen maam a sañ ci dëkk bi kon ñi nga xam ne seen maam ñoo sañ ci dëkk bi gortool yi yilif mbooloo mi àggali fii diine ba ñëpp am ci ñoom confiance ba dénk leen suñ seen bopp nañ xam ni am nañu responsabilité bu rëy ci kanamu kañ bàyyee seen ka leen bàyyee njaboot gi ak ëllëg ca kanamu suñu borom maa ngi encore di ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi dem naa fa waxtaan na ma moom déglu na ma la ma waxtaan moom nag duma ko du ma ko wax saa yu xanaa saa yu jotee saa yu jotee nag danaa ko wax waaye daal la ma ko bëggoon a wax wax naa ko dégg na ab noppam nee na ma naa toog déglu maa ngi toog di ko déglu di siyaar waa Sénégal gépp beneen bi ci des itam may nuyu sama mbokki waa diaspora bi di leen xamal ni awma seen pay ndax am réew moo xam ne depuis 86 ba léegi yaa ngi yaa ngi fay dem xam nga la fa xew maa ngi nuyu waa diaspora bi yépp di leen gërëm di leen sant Mauritanie gii laa koy commencé dem Espagne dem France dem Italie dem Suisse dem Portugal dem dem Allemagne dem Suède dem Danemark dem Corée dem Chine dem Japon

moo tax ñoom ñëpp li leen metti kenn xamu ko waaye ñu bari sonn nañ fa ndax kenn ku ne xam na ni Europe fi mu neexatu te sénégalais ya ne kenn ku ci ne lu mu gàtt gàtt yaa ngi fexe ba xëy di lijjanti lekk di lijjanti loo yónnee sa sa njaboot fii ci Sénégal ñu di ko lekk kon maa ngi gërëm diaspora bi fu sénégalais mën a ne ci diaspora bi ak tariixa boo mën a bokk ndax man awma droit ni maa ngi gërëm mu yi ya su li ma mën a wax rek ñëpp dugg ci biir maa ngi gërëm képp ku dib Sénégal te dib jullit ndax ña fa nekk ñëpp tariixa bu ñu mën a bokk ñëpp sumay wëlër dëkk réew moo dem ci Europe wala Afrique wala États-Unis ba Brésil ba Argentine ba Colombie ña fa nekk ñëpp ak bari na ci ñoo xam ni bokkuñu ci yoonu murit waaye la ma seq ak ñoom mën naa wax sax kon suma demé bay wax ci diaspora bi damay wax diaspora bi immigré mëna né ne te sopp ñu ñu sopp ko ñoo ngi lay yuné ab nuyo di leen ñaanal yalla defal leen xéewal ba kenn ku ne la la taxoon juk gaday génn Sénégal ngir wuti lo am ngir bañ kenn bañ la ré baña sacc baña def lu neexul yalla dem ñak yalla leen yalla jox teranga ju doy sekk ba ñëwaat fi ci Sénégal ci seen njabot dund fi teral Sénégal teral seen njabot ku ne ci diaspora bi rek foo mën a ne dëkk boo mën a ne maa ngi lay nuy di la sant di la gërëm seenu njàmbaar kenn waxatu ko bu senegal sénégal mi lay nii diaspora bee tax tey sénégal boo seetoon kër yi fi nekk ñi ëpp ñu leen dundal waa diaspora bi lañ kon da ngeen am mérite ci réew bi boo xam ni kenn sañu leen koo bañ a delloo këru diini goo fi dem lañ man ba di def la ci ëpp ci li jóge ci diaspora bi lay kon yéen seen mérite sun borom moo leen ko jox ngeen mérite ko ku wax wala ku def ko ne kenn mën leen cee ñàkk bu da ngeen cee bokk yéen waa diaspora bi maa ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal ku dégg message bi tey sama nit foo mën a nekk nag ma jotal ña fa nekk neen suñu abdune mi ngi leen di ñaanal di leen gërëm di leen ñaanal xeewal ak wér ak ñibbisiwaat seen njaboot te ñibbisi ci ñibbisi jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah rafet na